kuréel gi di Riyal dajale seeni i don yi ñuy amal at bu jot bii nag moom moo di ñetteelu édition ñuy dajale lu ci mel ni ceeb suukar diwlin ngir dimbalee ko jirim yi fii ci Sénégal. jigéeni Riyal nag di ñu brave di liggéey at mi ba mu jeex. ñu dajale nag seen dërëm la ñu am mu néew mu bëri ñu dem jàppale ji ko sa secteur bi nga xam ne ñoo jara jàppale muy le secteur très très vulnérable euh, ndax vulnérable mi ngi ta tombalee ci ñàkk ndey ak ñàkk baay kon ñooñu buñ ko ñàkkee ay bonne volonté yor leen au niveau des orphelinats ay c'est des bonnes volontés dunde wuñu l'argent de l'État ñu taamu lu toll ci fukk ak ñaari orphelinat yi nga xamante ni ñoom la ñuy jébbal bi leen ndimbal ren ñu ngi jàppale fukki orphelinat ak euh, ñaar yoo xamante ne nag ñu ngi ci Sénégal yëpp bu Tamba ñëw na bu Oussouye ñëw na Euh, bu ñaling euh, ñëw na bu Touba ñëw na bu Njaare Jurbel euh, ak yi nekk dakaar yi ñu jël Dakar yi nekk ay Kunun Kër Massar si Kamba boo gisee ñu favoriser nag ñooñu parce que des fois ndimbal day yéex egg ci ñoom ndax dañu xaw a reculer. waa Riyal di artu ñi nga xamante ni moom moo di jëwriñ bi yor lépp lu jëm ci wàllu jigéen ak xale yi mu jàppale ñi nga xamante ni ñoo féetee ci orphelinat yi. li ñuy xaar ci état nag moom surtout le secteur qui au niveau. du ministère de la femme li ñuy xaar ci moom mooy mu jàppale xale yu ndaw yi dimbali leen dañ leen a war a sàkkul weeru dee wu ne ñu ut bin som distribué ko orphelinat yi pour ñu di ko jënd lii ceeb suukar saabu meew di ko dundee ba nga xamante ne kuy dimbaleeti sax boo ñëwee di dimbali mais fekk nga leen ak seen dund dafa am solo. bi mooy ñetti yoon ñi nga xamante ni ñoom ñoo di réseau international des Amazone leaders di amal li ni mel li leen nag liñ ci jublu moom moo di taxawu bu baax ñi nga xamante ni ñoom ñoo di jirim yi nekkee ci orphelinat yi.